السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي دكنوي سنو بكي تالي بيب نانجلين دي نيو تي اندجين تي ناتو بيغا خمنا سن بروم باتشنكو موي ناتو بانا خيول ndax ñu yor ay tool soxla woon nañ lool ab taw kon moom xéewal la ci ñoom ndax na barab yu gëj taw lool surtout lu jege Tuuba ba soxla woon nañ taw suñ borom nag boo koy ñaan hmm, dangay ngay ñaan la nga soxla waaye nam koy defee nag doo ko xam kon nag bi mu dikkee nii doon xéewal ci borom tool yi waaye doonum nattu itam ci jullit yi nga xam ne dëkk nañ ci Tuuba te taw bi àgg ci génn leen seeni kër ba ay bakkan rot ci ñu ngi masawu seen bokk di ñaanal ñi ci faatu di wax ne metti na lool metti na lool waaye rek nan boole sant ak muñ te xool ci borom dëkk bi rek ni ma koy faral di waxee rek lam daa taw lu ma juróom-ñeenti weer yoo xam ne taw bépp ci kawam lay rot wale wale na ba tàyyi sallaaw am na wal moo xam ne téere yi mu doon téye ngir ba tooy ba tëlatut jëmmam sax nga tagg yi mu tagg yonent bi mu teg ko dënnam fa ba yéeréem ay lafi loxoom muur ko ci taf ko ci dënnam taw bi ñëw ak ngelaw li yóbbu na ko ba mu àgg ci ak garab a ko mujj téye nga xam ne bu dutoon garab gee ci zahir nii rek mel na ne mën naa dem ànd ak taw bi di dem rek ba kenn doxam fu mu yem ba yàlla suturaal ko mu mucc ca loolee te loola ay at at juróom-ñaari at ak lu topp ci loolu la sax day taw ci kawam léeg-léeg rek lay ne ci am nekk sallaaw am na boo xam ne taw bi metti na ba ci li mu yàq ci mbind yi bari na xam ko ko ne tee ngaa ñëw fii ma abal la waañ wi nga bale ko def fi say bagage fanaan fi bu set bu def noona yóbbu fa bagage yóbbu fa gaal yëpp bale ko toog fanaanee julli ba bët set waaye bi muy xëy di delluwaat fa mu war a ne ca wetu garab ga wala ca wetu quartier ga ñu xelmati ko xam ne kii da ko doon dimbale dimbale googa rek tëj nañ ca borom kër gi juróom benn weer nga dimbale gi mu dimbale sëñ bi kooku nag coono yooyu mu dajoon te suñ jëm yi rekk tax ñu jaayante dëkk ak moom doxale ko suñ digg suñ borom tam doy nu ñu yaakaar ko tey ëllëg kon natt bu ñu gis rek nañ jàpp lu des ca nattu yooyee la la la suñ borom rek cof ca jox nu ko te bu waree jeex dana jeex tey ñaan na ci dëkk bi ñaan goo xam ne euh, lu lu nangu ba noppi la euh, kañ lay am ak ci loxo yi ñu muy amee ak ñu am tawféex mu awee ci ñoom loolu kay ma ko wax waaye ñaan yoom nangu na ba kon nag maa ngi boole massaw ak ñaan ak nag ànd ak lool nag rek mu tiis lool ci nun ak yërëm leen looli nag ndax amuñu lu taalibe Sëñ Tuubaa waaye di dellu di wax na rek nañ xool ci sëñ boobu bii nga xam ne amuñu dul moom lim daj rek ta suñ jëm yi rek tax kon nañ jaayante rek te gën a góorgóorlu te lu ñu ci fekk ñu xam ne euh, am natt la ca nattoom ya rek waaye dana woyof toy te lépp dana jeex waaw di ñaan bu baax te xam ne itam sëriñ bi fi ne it itam jëpp mooy ndoxum Tuuba ak assainissement Touba xëy na procédure moo gaaw rek waaye jàpp naa ne bu noppee ñu fàtte lépp te kenn kenn ëpp ko yërmande ci jullit yëpp rawatina taalibe Sëriñ Touba kon nag jàpp naa ne fii ma ne rek fi la bokk yépp ne ñëpp am yërmande ñëpp amul ñeewant ci lii dal waa dëkk bi ndax dañoo bàyyi seen dëkki maam yëpp gàddaay dikk dëkk ak Sëriñ Touba waaye noo ngi ñaan sëñ tuba gàttandu ci yërmandeem ba lii daal di jeex dana jeex sax dana jeex ndax sëñ tuba ñaan na dëkk bi mel ni ni mu bëgg mu mel ni te suñ borom may na ko ba noppi waaye nag fa muy jaare ba muy wax naan sama jumaa ji war nañ ma ni mel loolu boo ko xoolee architecte yi rek dañuy defal plan defal lay maquette nga xam ni mu nar a mel bu noppee noonu rek lay mel si bi nee na dañ ko woon jumaa ji ni mu mel mu des nag kuy am taw feex mu jaar ci loxoom ñu ko war a def waaye dëkk bii li sëñ bi ñaan lépp am na nangu na ko waaye nag ku am taw feex ci lay jaare ci moom ku am taw feex ci lay jaare ci moom ñu ngi nekk nag taw feex ji ci ku muy doon ak kañ lay doon di masawu ñëpp